daanu ma de. ah bu dee nii la ñuy amee xaalis. dama nekk ci liggéeyu gars yi rek moo tax ma jafe. waaw nañ ci boole ay ndam rek loolu rek la. est-ce que est-ce que lu xaalis bu bari bi. ndeysaan Serigne Ndiaye nga la jëm yi. daal wax première impression lan la première mot. waaw sëñ bi. fay bokk. loo wax tey. tey sant yàlla bu baax rek. bu ñu yàlla maye combat. nee naa dafa ñu si ndam ñu ak suñu Tuuba. da nga ne Karama bàyyi nga làmb bàyyi nga làmb nga fa sax lutte simple. da mm. nga commencé dugg ci moo la ci xiir. tey contrat moo ñu fi indi quoi bëri dóor tey. waaw Seydou nekk nii mooy loolu. kon daal mën nañu jàpp ne Serigne Ndiaye léegi dugg na ci bëri dóor bi. non jàkkaarloo si dugg bi mooy sama dixième combat. Mm-hmm. waaw. mooy sa dixième combat. Mm. <laughs> jërëjëf. waaw jërëjëf. champion lañu soxla grand champion lañu soxla. moo tax ñoom ñu Serigne Ndiaye ngi noonu oto Serigne Ndiaye ngi noonu di bougé di ñëw Serigne Ndiaye ngi noonu kon nag Eumeu Sène moo ca des. Ibra Seye ah. Eumeu moo ca des Serigne Ndiaye di gis noonu muy tuwaate. tey eh, bii combat Gaston Production moo organisé ni ni mel Serigne Ndiaye 2 ak Eumeu Sène Junior Serigne ngi noonu di wàcc Serigne Ndiaye 2 mooy wàcc noonu Serigne Ndiaye 2 mooy wàcc noonu voilà mu moo nekk ci oto bi mbër la moo xam ne miin nañ ko ci lutte simple façon jaloore bu ne def na ko avec frappe bi nag am combat da koy të ndax xam nañ ne champion la champion la ci gabarit ci parcours nekk ci écrit bu mag léegi muy Fass Ndakaaru ngi noonu ngeen di gis mu yor butéel ba tegtal lay def ba noppi doog a wàcc cey làmb cey làmb tegtal ba lay def doog a wàcc ngi noonu ak sëriñ ba sëriñ jaa ngi noonu di waaj a wàcc ay la muy yëngal ñu doon laaj lu tax njaay wàccagut ci lutte simple bi ba léegi ndekete njaay ci contrat la ne boobu mu ngay waxaale promoteur ya combat ba taxaw na nag ngaa wàcc laal da jàpp da nga suuru da nga diw doo ko wàcc te lii bu leen fàtte présentation bi des na yeneen i face à face des na jàkkaarloo bu mujj bi ci arène nationale noonu Serigne Ndiaye wàcc na toj na leen de <laughs> toj nga lu séeréer bëgg waaye <laughs> mu ngi noonu champion bii moo war a bëreet Eumeu Sène Junior combat yi Gaston production moo ko taxawal ginnaaw bu mu toogee lu yàgg mënul am adversaire koo wax avance am mu delloo bokk na ci li gën a jafe ci mbëru simple yi am combat lutte avec frappe moo taxit mu ngi noonu moom Serigne Ndiaye di ñëw nag ci présentation bi ñu war a amal tey fii ci restaurant Le Calom wala Père Ibrahima Mbaye daa xaalis léegi <laughs> ndeysaan le grand technicien Père Ibrahima Mbaye nekkoon le de l'équipe yoroon équipe ndakaar Dakar ci drapeau chef de yóbbu ko ay yooni yooni yoon am ak ñoom ay ndam tey mu nekk le manager de l'écurie Fass Ndakaaru noonu gaa ngi seen débat bi lamb bëri protocole ndeysaan Père Moussa Gueye ñëw noonu wax Père Moussa Gueye nag wax Serigne Ndiaye di nga wax Père Moussa Gueye gisee kenn du laaj ana mbër bi kon fi mu nekk nii Serigne Ndiaye yegg si na ama seen si moo ci des mu yegg see présentation bi mat sëkk loolu bu la lii ngeen di gis fépp topp seen njaay mooy ci lutte sans frappe bi fépp fu ñu dem dañ koy gis mu ànd ak seen njaay ba muy bëreeg Libidor ñii la àndewoon ak moom ci arène nationale keroog ba muy jël revanche sam ci série ca franc ñii la àndewoon ak moom ci ñaaxaan